quiero Kalson nga war a ñëw côté bi. ah côté bi taxawee na la. taxawee de ginnaaw gi sa ginnaaw sa waay. nii ah non taxawee sa ginnaaw sa waay. ñëwal ñëwal nii nii nii la ñuy a la ñuy introduire nag dafa am lu xew ñaari doomu parcelle ñoo xewle. muy Boy Faye allo DJ bi mu ak Kalso mu nekk nag combat capital si ñoom ñaar ñëpp parce que ku ne xam na ne Boy Faye c'est un très grand champion waaye à chaque fois day peine pour mu am combat te loolu yaakaar naa ne ëppul benn allo allo allo bokk na ci li gën a tax tey wala bokk na ci li gën a yéexal carrière am waaw dafa dem micro ba yow jox ko beneen micro eh jox ko nañ jox micro ba waa ko ñu woote ci micro fii bi eh, waaw nañ jox micro waay micro nga xëy bii day ak yenn micro yi fi nekk ko léegi jos bi nga xamante ni yaakaar naa ne mooy seen kilifa ah ci wàllu làmb parce que yaakaar naa ne tey parcelle euh, am na fi euh, cër ci làmb làmb bu ñu see fii tamit jos am na ci cër tey say frère ah say rakk ni ñu ko mën a ñëw teewee teewee bés bi avant dara dañ lay nuyu dalal la bàyyi la nga nuyu lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi sant Sénégal di sant monde entier di sant samay waajur di sant waajur ñëpp aussi képp ko waajur génn ak na yàlla na ko yàlla xaree ka àjjana bépp waajur bu fi nekk mu yàlla nañ yàlla dogal mu gunge ñu ba si kanam a kanam a kanam di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant waa écurie Dóor Dóoraat bi yëpp voilà di sant waa koñ bi sama dëkkandoo yi di leen jégalu dérangement yi waaye sunuy papa ñoo fi nekk sunu yaay ñooñu yar ba ñuy xale ba léegi di leen jégaluwaat ci bépp juum te bu ñu juum amuñu lu dul yéen sunu papa yi sunu yaay yàlla yàlla wéral seen cër guddee seen fan yokku leen xéewal waaw dañuy def lu dul kontaan rek kontaan ci écrit bi kontaan ci écrit bi torop kontaan ci mbër yi vraiment mu nekk ay xale yu yaru xale yu dégg ndigal xale yoo xamante ne xam nañ seen bopp xam nañ fu ñu jëm macha allah waaw loolu da laa xam si ñoom. Mm-hmm. waaw ñoom ñaar ku si nekk am combat capital bi ñu koy waxee rek. parce que booy fay ci mu am Zambala c'est un très grand champion ñoom ñaar ñu xaman xamante bu baax yàgg daje ci mbapat bi conseil bi lan lay doon. waaw conseil mm-hmm. bu mu war a dëggal boppam la. Mm-hmm. jàpp ko du duma ko daan ko. loolu lañ ko sant. parce que dafa am ci lu loolu moom niñ ko décidé ba pare. fii kenn ñëw bu day nga signature neex na mën nga ko neexal. mais affaire de comédie amul fii. affaire de comédie amul ci làmb. fii kenn du fi comédien comédien yi ñu ngi fi ay théâtre. Uh-huh. fii ay mbëru làmb ñoo fi nekk. kon yëpp nañ la. nga def sa fulla ak sa fayda waa parce que yëpp ñu ngi sa ginnaaw. yàlla na suñu borom may la ndam. damay ñëw ci Boy Faye nag. Ah. damay ñëw ci Boy Faye champion d'Afrique gars yi xamuñu kuy Boy Faye mm-hmm. champion francophonie. francophonie. double médaille d'or xamu leen kuy Boy Faye bu soobee yàlla te ngeen xam kuy Boy Faye Boy Faye de Pikine de de de waaye de Sénégal de monde entier de parcelle de fépp que Boy Faye dafa jël drapeau Sénégal comme l'équipe nationale daf tey indi ko fii gañe ko ñu jox ndam Boy Faye dañ ko war di teeru buy ñëw buy. wàcc avion bi dañ ko war di teer ñëpp naa ko booy faaye booy faaye booy faaye booy faaye booy faaye doogoo li ma la wax Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang c'est le grand champion tey dañ lay wax ne euh, écurie bi ay champion rek laa fi yor boo doon lim champion yi tey ci équipe dóor dóoraa tey tey boo xoolee kuy kuy balballu si làmb yi wala nga teg fi tànk jaar nga dóor dóoraat mbaa contact naa yow lu leer laa la xoolal ñu fi ëpp doole si làmb laa la wax jaar nga dóor dóoraat wala ma wala nga jaar fi ma jaar wala ma contact yow tey Boy Faye dafa nekk espoir u écurie bi Boy Faye waxuma la ay Zambala man xooluma ay Zambala gisuma Zambala instant bi ni ci kanam booy fay booy fay du zone ma booy fay du Zambala moo koy téye man dox maa la wax loolu yow doo téye kii dëgguma la la ci doole ci fit ci jom ci fulla ci bëre ci xeex ci lépp ci yar ci teggin kii dama ko xam laa la wax yàlla ko yàlla moom mu fa ci jëm waxuma la booy jaay mais ci booy ñaa la jëm nga ne booy fay loolu liggéey diwu ay Zambala jënduñu Zambala ñun teguñ suñu bët ci kii bor xolal eh nañ ko bàyyi xel amul benn mbër bu mag laa la wax nii bu mu fi bàyyi kii xol Zambala booy fay daan na ko deux fois yaa ngi dégg daan na ko deux tey lii dafa nekk benn combat combat combat de confirmation mais nekkul ko mu xool ci lamb kii lambam dafa koy yéex ndax booy fay jox nañ ko avance ku ne mu delloo ko ñaata avance ni nga ci muy tere ne ku ne naan booy nañ ko nañ ko musal ci cat nañ ko mos ci cat mais lii du combat bu soobee suñu borom maa ngi ñaan yàlla ñëpp ñu may ñaanal ci àdduna nañ ñaanal Boy Faye mi yàlla suñu borom may ko ndam. jërëjëf yàlla nañ mooy ndam ñu koy ñaan yàlla suñu borom.